حافظوا على leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi baaxoo di suivre suñu seen bi di Xew gi TV di leen ñaan ngeen yokk seen ay abone te bu leen fàtte di bës cloche notification bii mën a tax ngeen am suñu yeneen vidéo jërë ngeen jëf. ci si xew gi TV euh, di leen wax ni ngeen wéy di topp suñu ay programme yaakaar naa ni lii commencement rek la euh, te li dàq mi ngi ci kanam kon wéy leen di abone te bu leen di fàtte di ba suñu euh, cloche notification bi mën a tax ngeen di am suñu yeneen i vidéo tey nag ñu ñëw seet si fii nii jëmm ju mag jëmm ju tedd joo xamante ne Serigne Cheikh Wade lay wuyoo di yëngu ci wàllum fajum cosaan Euh, ñu fas yéene nag waxtaan ak moom ci dimbali gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñëw fii di ko fekk ci yan anam leen di dimbale ak ñan ñoo amee yenn jàngoro yi nga xamante ne yooyu lay mun a faj xam naa laata ñuy euh, démarrer ci biir développer ci biir waxtaan bi dañu koy jox kàddu mu daal di nuyoo su ko defee ñu mën a xoos bu baax a baax ci biir waxtaan bi Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu. ah Mamadou auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi noo ngi lay fayab nuyoo. ginnaaw bu ñu sante yàlla noo julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba eh, di la sargal ci lay wax bisimilah. jërëjëf sëriñ Cheikh Wade eh, yow fajkatub cosaan nga nekk fii ci tuuba Télé bu bees Sonatel 2 bëggoon nañoo xam maanaam xam-xam bi nan la dikkee loo doonu la wala loo jàng la. waaw kay jërëjëf Moodu xam-xam bi de lu ma doon la ci samay kilifa samay maam laa ko doon ndax nday ji jur sax day day ñaan samay maam nag ci laa ko jële man waaw fii ci moom laay liggéeyee boobaak léegi léegi mat fukkaat ak juróom waaw yàggan naa ne ci man nag waaye dama am beneen métier waaye téewutan sax ñi ma xam dëgg te xam nañu maa ngi ak moom ñi ma jege woon waaye fii mu ne nag laa toog di ko jëfee bi nga xamee ni samay maam bàyyi koo nañu fi waaw ndax da nga dem ba am ci ndigal di soog di ko jëfe wala da nga dem ba xam ne instant bi jot na sëkk ngir nga mottali si yéene maam ci jaami yàlla yi nga soog liggéey. waaw miin naa ko miin goo xam ne nag ñemewuma ko woon a def ca awuma ci ndigal ba pare neexuma ndax xaman la ma ci doon jànkonteel bi ma doonee gone waaye fi ne nag yàlla moo ko indi ci man rek mënatuma koo gàntal mënatuma koo daw ma di ko def. Mhm. jërëjëf mbokk yi loolu yaakaar naa ni leer na waaye xam naa kon dañuy développer ci biir euh, waxtaan bi ndax euh, dina am important tey dina concerner ñu bare bare ñi nga xamante ne ñu ñuy baaxoo dañu suivre fii ci Sekhawgui gi TV euh, ndax mën nga ñoo wax yan xeeti jàngoro moom ngay faral di faj fii. yan xeeti jàngoro bari na fii ne dama lay wax moom ni bu la fi sama borom indee nag suñu borom mën na laa dimbali jàngoro boo fi indi mu saafara. yu ci mel ni yan ak yan. mel yenn rek. mooy saytaaneeg ngelaw ak ay rabak ak bari na daal ay xeet yu baree bari yoo xam ne mënees na ko fee faje boo ko doon laaj par benn benn dinaa la ko leeral. waaw nit ki ban melokaan lay am bu ñëwee ci ba nga mën a xam ne lii saytaane moo ko dugg. waaw loolu nag lu ñuy seet la ñun lu nuy seet la ba gis ko waaye duñ tëb tëb nit ñëw rek ñu ne ko saytaane ma la dugg waaye dañuy seet nag ba gis ni suñu borom may nañu bu ñu ko seetee dañu xam lii saytaane la walla du saytaane dañu xam feebaru docteur ak. ak feebaru boo xam ne garabi olof a koy faj ndax am na feebar yoo xam ne fii ma nga gis nii docteur mën na ko faj garabi olof mën na ko faj waaye am na yoo xam ne garabi olof du ko faj docteur koy faj loolu nag ak la moom itam ak ràññee suñu ko seetee rek la ñuy mën nga see mës nga cee am cas boo xamante ne maanaam koo xam ne dafa dem ci docteur ba télé ñëw ci yow suñu borom dogal nga tàqali ko ak jàngoro ju ju ju mu doon wéyaale waaw loolu du jeex am naa fi sax ñu indi fi ay ay analyse wala ay rajo ci am ëmbu nak ëmbut ma ma am fituni ni du ëmb yabal leen ci hôpital ñu dem di defi radio ñu naan ëmbu ñuy dox ba yag xam lañu la yor du ëmbu ñu doog dé si fi man ni ma la nga waxan moy dëgg wa lool ma ngi koy def fii. Euh, ñu euh, gis ne tamit da ngay faj euh, lu ci melni ndoxum siti te yakarna ndoxum siti mo moy ndey jàngoro ji te mo moo lëmbee léegi bi sax lay wax du ma réew mi. Euh, naka nga koy traité ba nga xamante ne loolu day denc nit ki ba set wecc wala da nga koy jox ay calmants yoo xamante ne day calmé wu. waaw euh, garab bi ndoxum siti nag lu ñu composé la ay garab luñ composé yu bari di ko jox nit du ko metti dara du weex du def dara mm, garab yi ñu composé la boo ñëwee ñu jox la ko di la traité ba mu dañ waaw ay garab la ñu boole yu bari xeeti garab yoo xam ne benn du gaañ kenn da nga koy naan du daw sa biir du weex du yëkkati estomac du def dara da koy naan rek mu dindi li ne sa yaram. waaw. beneen ci topp muy wàllum impuissance sexuelle maanaam góor gu tële euh, loolu tamit yaakaar naa da nga koy faj. waaw góor gu tële am na góor am na yu may faj waaye du ma ni yëpp laay faj nag ndax daa am tële gu ne daa am lu ko waral waaye doo nii rek góor gu tële boo ñëwee ma faj la. daa mën nga ndax mën nga ñëw wax comme yan genre yan genre genre tële nga mën a faj. tële yi nga xam ne seen borom dañoo feebar yor feebar boo xam ne seen yaram la ne mën naa ne seen digg ginnaaw mën naa nekk seen digg. mën naa ne seen xol am ci yoo xam ni borom ay rab la yor maanaam far rab di gént di sëy ak waaw yooyu mën naa ko dindi waaye dafa am yoo xam ne nag moom ay sidit la kooku moom mënuma ca dara ndax sidit yu sunu borom jàpp la ca defaraati sidit moom mënuma ko waaw dëgg la ndax euh, am na si ñoo xamante tey boo leen góor gu tële automatiquement li ñuy xalaat moom mooy góor bu nekkul góor maanaam góor goo xam ne ay cëram du fonctionné alors que loolu bokkul ak góor gu tële ndax mën nga gën a ñëwaat bu baax a baax ci question bi comme ñi nga xam te ñoom ñu ngi seetaan ñu mun a xam différent bi. waaw góor gu tële boo ko judduwaalee mënuma koo faj dee loo judduwaale la bu dee doon nga ko def nag mu feeñ ci yow suñu borom dogal na mën naa ci dara waaw waaye guñ judduwaale gi moom wax dëgg yàlla mënuma ci lu bare waaw daa am na goo xam ne day dab nit am goo xam ne feebar la am goo xam ne problème mu xol la mentalité am boo xam ne naqar la am boo xam ne moom rab la waaw ndax sëy fi mu ne am na ñun góor li ko waral seen xol du neex moo nekk waaw ay naqari la ñuy am yoo xam ne ab sëy du am ñoo xam ne dañoo sonn coono boo xam ne mënuñu ko booleeg sëy am ñoo xam ne problème mu rab la dañuy gént di sëy bët bu set xam nga soo sëyee boo demee sa jabar boo géntee sëy normal dëggantaan lay doot soo demee sa ci mën lu bari kooku dama koy faj damay fexe ba li ngay li lay géntuloo ngay sëy ci geneen image bu mu lay jox ma fexe ba mu daj bu boobaa nga daal di nekkaat fi nga nekkan waaw noonu la jërëjëf loolu yaakaar ne leer na waaye yaakaar naa ni euh, du man yaakaar naa ni sax euh, ndax xam naa ni euh, loolu wér la ndax it laataa ñuy ñëw fii def nañu ay gëstu gise nañu ñu bëri ñoo xamante ne jot ngaa jëflante ak ñoom te it lii nga wax nii rek la ñuy confirmer waaye tamit olof dañuy tunga ni teew ñuy nataan yi kon yaakaar naa ni nga wax ko ci sa ñu bopp askan wi déggandoo ko moom mooy gën a am important bokk na ci jigéen joo xam ne dafa tëlee am jëkkër yaakaar naa ni kooku bu la it mën na ci am la ko gën a ci soxna yo xam damay wax amna garab go xam kuko sango ñett wër yi damay tok fi maa koy waxal sama bop amna ñu may deg wala buñu ñu ma seetaanee day ñoo xam wax dëgg la dama la buma la joxe garab gi fi ak ñett wër suñu borom dina dox nga jaar bo taamuwut wa ku tamu nak mënu ko lijeenti amul mënu ko lijeenti ay ku bëgg jëkkër ci yalla tax de nga ci nga ci am ci ñett wër yi wa bu dé goor it bu dé soxna nga bëgg lool day am bo tamu wa légui nak yeen xalé yi mu ngi di tamu ay soxna mais soxna tamit xam nga faaw nga tànn ko waaw te euh, yaakaar naa ni euh, loo tànn lu nekk ba mu doy la euh, ëllëg xëy na mën nga cee bañ a bañ am loo xamante ni mën na lay gaañ wala loo ci noonu wala dara yaakaar naa ni ko loolu moo tax jeunesse bi léegi sama genre yi di tànn soxna te yaakaar naa ne tànn aussi tamit am important la ndax suma ma juumul ni ngay faral di seet ay ay sëy maanaam rawxaan yu ànd wala yu àndul. waaw bu ne ci wet googu moom jabar da su koy seetlu. tax na su ma ko dee wax mooy yàlla mooy boole ay sëy yàllaa koy def sëriñ defu ko sunu borom moo koy def te sunu borom kam la boole rek ngay sëyal kon nit day tànn waaye sunu borom ay boole kon yàlla ay tànnkat bi waaye nit ki moom day mën a seetlu rek ndax baax na wala baaxul waaye tànn moom munu ko sunu borom mooy tànn ndax léegi nga bëgg nit ba defe ne mën ngaa sëy moom fekk sunu borom dogalu ko léeg gone yi ñëw fii di bëgg damay wax kuy bëgg na nga ci jiital borom bi subhanahu wa taala mën ngaa bëgg amul fii tam nañu sonn ñoo xam dañoo bëgg loo xam ne toog nañ ci seen xel jàpp ne kii mooy doon seen jabar ca fekk yàlla dugalu ko bu ko defee bëgg googu day seey nga wutiwaat geneen bëgg rek moo tax bëgg amul solo rek dama koy wax loolu yaakaar naa ni leer na waaye wàllum ceet mi tamit bëgg naa nga gën ci développé bu baax a baax da ngay seet ay rawxaan yu ànd wala waaw damay seet ñu seen i ànd ak seen rab waaw dama koy seet ci fànn gu ne nag waaw boo boo ma joxee ñaari kenn ku ne dinaa la wax li li na ci li jafe-jafeem waaw ba pare doo laa wax ne nag ah, seeni nii la demee demee nii waaw ku mën a doon ku ne rek. noonu da ngay seet par distance maanaam comme tey nga am client boo xamante ne wala cliente boo xamante ne nekkul ci fi nga nekkul ci dëkk bi ndax kooku tey bu jokkoo ak yow di nga ko mën a seetal ba mu am li mu bëgg. waaw noonu daanaka li ëpp ci li ñuy seet seetu téléphone la maanaam ñi nekk Touba nag moom dañ ma fekk si fii ku ku sax fekk si yomb koo xam da ngaa bëgg dox leneen waaye bu dee seet rek amut fu sama numéro bi di foo xam ne doomu aadama du ma woo ma seetal ko. muy guddi muy bëccëg waaw dama koy seet waa ji téléphone nag bu dee seetu euh, suuf gi nag su commencé 8 heures 17 la la laa koy bàyyi 17 heures 18 heures rek ma daal di koy bàyyi waaye li cees nag ci téléphone laa koy yeggale waaw mbokk yi yaakaar naa ni loolu leer na euh, ki ñu toogal moom moo di Serigne Cheikh Wade pour ñi nga xamante ni euh, euh, waxtu wi émission bi damaar na lu yàgg ñuy soog a ñëw di ñu dabu si mooy Serigne Cheikh Wade di fajkatub cosaan bu mag a mag bu nekk fii ci Touba te lu bees Sonatel 2 yaakaar naa ne ku ni jàkk xar kanamam gi di nga ko xàmmee dimbale na fi ay niti niti nit yoo xamante ne ñun am nañ ci lu ñu leer nañ waaye comme ni ma waxoon léegi rek ci njëlbeen gi tungi ni du teew ñuy nataani wàllum émori tamit yaakaar naa ni da koy faral di faj hémorroïde euh, nag bu ñu ko waxee dafa bari ay façon ndax mën nga ñoo ñëwal ci façon yi ngay faj ak yan façon hémorroïde moo am. waaw hémorroïde de ñaar laa ci xam. mooy bii ne ci sa biir ak bii génn. waaw loolu dañ koy faj fii mais ñaari hémorroïde rek yooyu rek laa xam ci hémorroïde. waaw bi nga xam ne moom day génn ci suuf ak bi nga xam ne maanaam ci sa biir yaram la nekk. waa yooyu yooyu ñaar laa xam. hémorroïde lan la mën a def ci nit ki hémorroïde nag baaxul ndax bii génn ci suuf day dem ba dalay indil problème mu dem dem dem dem douche bi nga xam ne day ne sa biir jeexal ba pare day tàng sa yaram doole ba pare nekk nag mooy ñàkk sëy gi mooy wax ni da ciy ne waaw ba pare sonn lay bañ waaw day rey ndax léeg nit yor ko muy misère ñu naan ko nangam laag liggéey laag dañ laa def ni fekk na déedéet hémorroïde dong mën a ci yaram su ko traité nag day mujj di jeex di jeex di jeex ba da nga naan sax leneen na ko dal fekk hémorroïde dong la góor gu sonn la dëgg la boobu. yaakaar naa Konya hémorroïde noonu lay manifeste manifesté woo ci nit ki. Ah, kon yaakaar lawan ne mbokk yi euh, euh, leer na Serigne Cheikh ku ko soxla jamono ji nan la mën a def ba ba ba déggante ak moom. waaw am naa ay numéro téléphone ñaar Tigo ak Orange bi ci bi bi jëkk 76 la 847 25 92 bi ci des 77 la 452 59 12. ñaari numéro yi rek la Baye Cheikh Wade yor waaw. Ah, ndax numéro yi tamit am nañ WhatsApp pour pour ñoo xamante ne dinañ mën di jëflante ci wàllu WhatsApp beeg yow. waaw ñaari numéro yëpp WhatsApp la waa ñaari numéro yëpp WhatsApp la ndax am ñuy déggateel ñoo xam ne dañoo sore ci WhatsApp bi moo leen arrangé waaw. tamit euh, moom. Euh, seet gi 1000 francs la waaw 1000 francs la léeg-léeg boo ma soree boo ma nee dugal ci euh, Wave wala Orange Money mbaa nga jënd ko crédit envoyé ma ko. laa lay may 5 minutes rek ma seetal boo ko dugalee rek 5 minutes waa ngay toog ma seetal waaw. bu dee ci wàllum paj bi tamit euh, ma dégg ne euh, Serigne Cheikh Wade da cee uti ak ñu bari maanaam du du la du la ne nangam laay fajee rek nga compter nangam jooju boobu ma rek jox ko ko euh, ma bëggoon loolu tamit nga développé ñu ci bu baax. waaw damay wax ni Serigne bi Serigne nag daal doon na ci maamam du Serigne Tariyax comme di wut xaalis xam-xam bi nu yor du dañuy dimbali jaam ñi lu ci am nag lu ci ñëw nag nu téye ko waaye du xaalis. waaye daa am coono nag yoo xam ne mënut a ñàkk dara di jóge ci nit jëm ci ñun ndax moonu fi moonu fi bàyyi ba ku may ñaanal bu ma la laajee li gën a tuuti lay téye ba faj la ba noppi nga mottali si mottali si ku ma xam rek lu ma xamee yaakaar naa ne mbokk yi euh, dal na xel waaw euh, li gën a néew lay téye ba nga gis sa bopp ba xam ne kat kii li ngeen waxante woon lépp euh, matal na ko ngay soog a ñëw motul si kon Serigne Cheikh Wade ku ko soxla ku nekk rek mën nga ko fekk si fii ci Touba Télé bu bees Sonatel 2 waaw mi ngi fii nii demul fenn ndax mën nga ñu wax tamit yan heure ngay disponible pour ñi nga xamante ne dañu fiy bëgg di ñëw. waaw xam naa fii daal kuy seetlu moom boo ma fi fekkee 17h boo ñëwee damay bàyyi seet moom bu dee seet téléphone nag heure ba minuit. boo ma dee gis ci ligne bi rek bu dee wala nga woo ma dinaa la wuyu ba minuit waaw maanaam 7 heures ci suba ba minuit heure boo ma jotee naa la dinaa la dina am yenn fan yoo xam ne nag diggante 14 heures ba 15 heures ba 16 rek 16 heures et demi damay noppal damay fay téléphone waaw ndax damay guddee nelaw te damay nelaw heure yooyu noppal sama yaram tuuti waaw heure yooyu daal léeg nit woo ma du jot waaye bu passé heure boobu heure boobu moo koy jot. serigne Cheikh Wade bu fekkente ne am luma lu ma la bëggoon a sama xel moy moma laaj la ko nga war ko leeral lan lay waaw xana di sante nak bu dee di sante seen seen site bi ñuy wax Sekhawgui Go TV ndax ci la bok ma ngi yeen ben ngeen xam nga yeen ma leen yaar ba ngeen toll ni ngeen toll bu ngeen ñëwé def lu rafet li damay ñaan yalla mu yok ci jëm kanam mu dem ba doon télé ci am nañ ci yaata suñu borom guddal seen fan ba ngeen liggéey ci ba am ci ci yalla man nako Euh, daanaka li ma ciy teg rek mooy di sant sëñ Tuubaa mi ma nekkal di xam lay ni du def katu lu duma def nit lu bon xalaatuma ko ca du sama wàll ci liggéey bi may liggéey dama koy def ngir jëmmi sëriñ Saliou duma ci def lenn lu naqari boroom dëkk bi loo xam ne tëdd naa nelaw fii ci néeg bi xam ne lii kat du yoon loolu du ma ko ci def aw ma ci lu may dama ci xaw a naqari de sax waaw ndax du ci wax nit loo xam ne day dem bëgg lu muy li ma waxul dëkk waaw du ma ci dugal li may def nii tey jii di ci tedd bëggub xaalis dugalu ma ci waaye dafa nekk ci man ma di ko def kon maa ngi leen di ñaanal suñu borom sàmm leen ci guddal seenu fan kontaan naa trop. bàyyi la nga fàttaliwaat numéro téléphone yi. numéro téléphone yi bu dee 76 la 847 25 92 la 77 452 59 12 waaw mooy numéro yi. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi baaxoon di ñu bàyyi xel ci jamono ji nii eh, ci seen site bu mag bi nga xamante ne moom moo di Xew gi TV kon xam naa dañuy jaar foofu rek wàccee eh, daal di yëkkati yëkkati jotaay bi ba beneen yoon incha allahu rabbi alladina xaafazu leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi baaxoo di suivre suñu chaîne bii di Xew gi TV di leen ñaan ngeen yokk seen ay abone te bu leen fàtte di bës cloche notification bii mën a tax ngeen am suñu yeneen vidéo jërë ngeen jëf